waaw mais euh, euh, Khadim combat boobule wax dëgg yàlla moom la làmb soxla parce que euh, vraiment mooy li nga xam ne bi moo moo moo taxaw en tête d'affiche donc combat la boo xam ne bi wax dëgg yàlla ñëpp ko soxla euh, donc inévitable làmb moom li leer ba leer mooy li ngeen di faral di wax rek garab ci kaw la ñuy fekkante waaw mais donc euh, boo yàggee ci làmb ji foo jaar bëreek say mbag ba foo jaar bëri say moroom bëri say rakk donc loolu moo fi nekk ku bañ loolu nag alors boo yebu nga tekki sa ngemb bon pour dellu si ci combat ba ngay wax combat royal effectivement c'est un combat royal je dirais waxoon naa xaadim dootuma waxati ci làmb encore une fois de plus danaa répété wu parce que euh, nit ñi il faut que ñu am li anglais di wax open mind euh, sénégalais yi yeewu ci ne waxuma ne ñu nañ ma jéggal sax encore ati wax yombul euh, sénégal yi accepté ne partout fu mu mën di doon ci àdduna disipline sportive bu nekk dañ koy commenter dañ koy décortiquer dañ koy débriefer lii ak lii moo tax ma gagné lii ak lii moo tax ma ñàkk waaye fii boo ko fi defee ñu am fu ñu la féetale man aw ma jotu farak kenn pour mu leer aw ma jotu farak kenn donc loolu leer na bu ñu dellusee ci combat bii nga wax ni Ama Baldé Modou Lo Ama c'est la jeunesse Ama c'est la force à l'état pur Modou c'est l'expérience Modou c'est le guerrier entre nag la jeunesse l'expérience la fougue de la jeunesse le le le le le comportement de guerrier alors kooku dama leen di bàyyi ngeen choisir ah mais euh, pour dire que ne euh, ama machallah euh, am na la jeunesse ak moom am na la force de la jeunesse normalement ak moom bon donc euh, am na la fougue de la jeunesse donc euh, am na pour avancer Modou c'est un guerrier lu leer laa la wax c'est un guerrier benn te Modou kenn mënatul wax de amul expérience ci làmb ndax tous les grands ténors yoo fi mën di tudd Modou Lo jàppante naa ak ñoom que ça soit Bombardier Balla Gaye Eumeu Sène euh, euh, defe naa. Euh, Baye Mandione ah. Lac de Guiers Lac daje naa Gris Bordeaux wala. Gris Bordeaux deux fois. Gris Bordeaux. Mm-hmm. voilà donc ñi nga xam ne bii ñooñu la ñuy wax tête d'affiche yëpp Modou. laale jàpp laale na ñoom donc am na expérience su mm-hmm. combat. Mm-hmm. am na aussi que euh, honnêtement il faut le diir encore une fois je vais me répéter c'est un guerrier mm-hmm. voilà donc euh, mais nag waxuma ne ba léegi kii mooy daan wala kële mooy daan mm-hmm. mais dama la bëgg a waxal moom yàlla rek moo ko xam incha allah. waaw kii daan yàllaa ko xam mais kii daal lii mooy atome kii itam lale mooy atome il a la jeunesse il a la fougue euh, te du ragal aussi Ama Baldé ragalul ñefekat la mm-hmm. mais nag. léegi compa bi daal mu ngi noonu. Mm-hmm. mais seen forme physique noo ko gisee ñoom ñaar. seen forme physique noo ko gisee. ah non mais gën xam nga depuis l' avènement de ci mbas mi ndeysaan yal na ko fi yàlla gaaw jëlee. amiin waaw yal na ko fi yàlla gaaw jëlee ñëpp delluwaat ci seen activité te itam wax dëgg yàlla euh, encore benn conseil bu ndaw bu may joxe rek autorité yi waruñu gën a bëgg suñu bopp. Mm-hmm. waaw euh, takkal masque raxasal say loxo. mais wax dëgg yàlla pour sa jàmm sa jàmm yaram mais loolu waruñu sax ñaax nit ñi parce que lu war lu war a naturel la war a doon waruñu sax toog di ko wax ñaari yoon wala ñetti yoon. combat ñëpp la de. waaw ah, loolu la combat ñëpp la il faut que ñëpp dugal ci seen loxo pour que wax dëgg yàlla ñu mucc ci bon donc depuis avènement boobu la am ba léegi làmb amul donc gisuma leen wax dëgg yàlla gisuma seen forme physique. mais c'est tous des jeunes même Modou bu fekkee ne euh, dafa teel a dugg ci làmb aussi xelal la. Euh, Ama Baldé waxi nopp xelal la donc ñoom ñëpp ku ci entraîné jox entrainement bala war alors euh, forcément jour J parce que Khadim. gis nga un combat. li ma lay wax lu ma xam la. gis nga combat. mën nga nekk fale entraîner entraîner entraîner def lu la neex. sa encadrement wax la lu leen neex mm-hmm. euh, euh, conseiller la mm-hmm. defal li attention li attention lii mm-hmm. mais il y la réalité du moment ci biir géew bi adversaire bi taxaw yow nga taxaw gis nga lañ la conseiller bokkul ak li nga xam ne bi mooy réalité bi am léegi tiin tout de suite bi nga nekk sa kanam adversaire kooku moom beneen affaire la ku jaarul ci combat mënoo xam loolu donc parce que mën nañ la wax lu nekk fële nga ñëw fekk fii leneen alors bu boobaa tu seras obligé nga changer de stratégie stratégie voilà donc euh, euh, combat moom da ci da nga ci adapté wu rek au moment M donc euh, wax dëgg yàlla mënuma gëj naa leen gis xaw ma seen forme physique fu mu toll mais daal vraiment combat la boo xam bi ñëpp ci ñëpp koy xaar ñëpp koy xaar mais bëri bi wala xeex bi ban nga yaakaar ne moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci nar a gën a ëpp. je sais pas wax dëgg yàlla parce que xam nga wax naa la léegi réalité du moment xaadim da nga ñëw indi dóor waa ji indi la bëre nga ñëw indi bëri waa ji indi dóor donc bu ci nekk boo sentiree ne yow ci sa wàllu bopp du sa point fort foo jaar adapté wu ci li mu indi est-ce que comprendre fi may waxee. cest à di que mun nga jàpp nit ñi ay dóorkat lañu dóorkat lañu ñu ñëw indi bëre parce que bëre dóor dóor bi xeex bi ci biir boppam am na fu muy toll foo xam ne fii dootu la arrangé bëre moo lay arrangé xam nga mën nga ñëw préparer xeex malheureusement tu prends un coup boo xam ne bii bu la atteindre dëgg waxuma mu kawote la mais mu atteindre la dëgg mais tu es obligé nga changer stratégie ci biir combat bi c'est donc itam mun nga indi bëre <laughs> sama yi waa ji indi euh, loo xam ne lii xeex la xeex xeex la laaj. Mm-hmm. tu obligé nga xeex. Mm-hmm. donc loo tax ma daal di la wax léegi la vérité du moment. Mm-hmm. voilà bi ngay jàkkaarloog sa adversaire. foofu c'est très important. dernière question ci combat bi est-ce que mën nañu ko organiser ak euh, sous forme huis clos. waaw ah loolu de mu ngi huis moom mu ngi dépendre wax dëgg yàlla ci ñi seq làmb. mais nag dafa am benn affaire boo xam ne bi man dama ko dama ko jàpp dañuy wax sport de chez nous euh, làmb côté culturel bi mu ëpp côté sport bi d'accord nga xam nga mbër mu ñëw di bàkku kenn nekkul ci stade bi est-ce que est-ce que dana yëg boppam foofu mbër muy bëri sentirul euh, euh, un Modou Lo buy bëri sentirul waa parcelle ci gannaawam est-ce que même Modou bi lay doon Balla Gaye muy ñëw bëri sentirul waa euh, géejewaay ci gannaawam est-ce que même Balla Gaye bi la Eumeu Sène buy ñëw di bëri sentirul waa Pikine ci gannaawam est-ce que même bi la donc dama la ne côté culturel bi c'est-à-dire li ci laxasu turo safar yi daw gaay yi songante mais loolu mooy charme làmb looloo tax xam naa gaa yi di ko wax sport de chez parce que euh, diw xaar fa fuufa yeeg tuuru njaq yeeg yooyu yëpp folklore boobule boo ko dindee ci làmb wala bu ko nit ki mënul seetaan wala mbër mi acteur bi bu ko mënulee yëg ci biir làmb ji boof je sais pas mën na mën na neex nit ñi mais. Euh, dina wàññi lu bari daal. dana dana ci wàññi lu bare. Euh, Modou Lo wala Balla Gaye moo bëreloo wala Eumeu Sène waa Pikine wala Parcelles wala Guédiawaye nekk ci gannaaw bokkul ak ñu nga bëreloon te bëreloo leen te sentiruñu seen amateur yooyu la ñuy bàkku euh, gars yi jóg yuuxu tàccu mais sentiruñu ko seen wet est-ce que même nit ki lay doon parce que loo xam ne lii peut-être ku nekk quelque accompagnement fa accompagnant fale kii accompagnant fale ñu daal di ñëw c'est les euh, euh, caméras ñu ñëw filmer ku nekk dem ah, bof je sais pas xam naa ne daal euh, mun na mën na neex de waaye nag am na est-ce xam nga ne am na suñu xaadim ñoo xam ne bu ñu demee ci làmb bu gars yi bàkkoo rek ñu ñibbi. waaw dégg naa dégg naa damay dégg ñuy faral di wax loolu. amateur ñu xam ne làmb bàkkoo rek mënoo yóbbu ci stade bi. bu ñu bàkkoo. bu bu ñu bàkkoon gars yi ñu bari les amateurs doyal nañ ci làmb ca parce que moo tax man la culte côté culturel bi moo ëpp doole côté sport bi donc nag wax dëgg yàlla xam naa ne peut-être bu fekkee ne dañu bëgg làmb am parce que mbëri il faut ñu bëri il faut ñu am lu ñu suturloo am lu ñu téye seen njaboot d'accord il faut ñu trouver solution parce que nag euh, li ñuy wax aux grands maux les grands remèdes am na loo xam ne li il faut da nga trouver ko benn alternative boo xam ne bii da nga ci mën a génn ñoom itam ñu gis seen bopp promoteur bi joxe xaalisam ah bu sañoon stade bi fees ah euh, bu ko amulee mbër mi amul accompagnement accompagnant te am njaboot gu mu war a dundal itam wax dëgg yàlla loolu itam jar na seetaat donc xam naa ne looloo tax gaa yi rek pour euh, promoteur bi bañ a lésé wu. mbër mi bañ a lésé wu alors ñiy gravité autour ci làmb yëpp wax dëgg yàlla mun ci gis seen bopp. xam naa ni looloo tax ma ñu ut boobu solution. mais nag euh, daal yaakaaru moom mu doon euh, même même cafka bi. mu am même sànq bi ko avant. Hmm? mu am même sànq bi que que boona public bi di ñëw. ah non bokkul bokkul. mais làmb joo ñëw fekk stade euh, Léopold Senghor fees dell. Hmm. gars yi yuuxu pétard yi tàkk ndënd yi jib mais ak Léopold Senghor boo jël rek ku nekk daal di ànd ak say accompagnant rek alors ñu daal di ah. taxawul noonu mbër mi daal di bàkku mm-hmm. euh, daal di pare ñu sifle euh, làmb dana ci dana ci perdre kii bu bare macha allah am na solo waaw waaw loolu moom am na solo trop vraiment te yaakaar naa autorité autorité tamit dañ sa xalaat te trouver solution ci nu mu gën a gaawee tamit parce que comme ni 10 mois de chômage yàgg na trop 10 mois sans salaire moom ku la ko wax ak ku la ko waxul yëpp xamal ne métti na persensé bu doon boo doon tàggoo la dernier mot bi mhm. ñu tëj ko foofu waaw mais su ma tàggoo mooy li nga xam ne bi moom laa moom lay moom laa wax ci njëlbeen rek ñu ngeen góor góorgóorlu ci seen liggéey euh, l nit ki waxal wax ngeen bindal ko ko euh, moo xam ne lii man maa ko wax waaye léeg-léeg am na ci benn site boo xam ne bii duma leen tudd mm-hmm. àdduna mënatul gudd tànk mukk bañ interviewé ma mm-hmm. loolu moom vraiment kii parce que dañ ma interviewé ma wax ci benn combat mm-hmm. te la ma wax loolu wax dëgg yàlla ku nekk mën na koo dégg naa ko wax ñoom bu ñu ma dégg dañ xam ne ñoom lay waxal ma ne les anciens lutteurs ñi nga xam ne bëri na nañu yàgg nañu joxe ay coup yàgg nañ leen di jox ay coup xam nañ risques yi nekk ci loolu nañu def seen benn mémorandum bu ndaw jébal ko CNG ñooñu waxtaan ceeg ministère ñu seet coup yi nga xam ne bii war nañ ko interdire ci làmb parce que la vie bakkan bi dafa war a continuer après carrière sport mais sa carrière jeexagul sax nga daal di fa jaare loolu mar de taalil dañ ko war a moytu parce que y a des yoo xam ni c'est des coups à risque loolu mu ngi nekk ci bloqué nit kor ko li ñuy wax kor kor ko au niveau des vertèbres cervicales ba pare dal di ko dur coup de kooku mën na indi commotion cérébrale mën na mën na indi ndeysaan li dal suma idole Muhammad Ali boxeur li ñuy wax la maladie de Parkinson loolu laa wax mais ñale daal di reprendre daal di bind ci suuf seen see Alioune Sarr a dit que tel lutteur du ma jaaraat ci tour bi parce que bu ma euh, il tel lutteur il risque la mala euh, il risque la maladie de Parkinson ma ne ma ne may attends j'ai jamais dit ça dama ne les coups à la tête mun na indi loolu mais waxuma ne tel lutteur loolu mun na ko arrivé donc ma oo leen histoire ak ñoom. parce que lii la lu mel noonu laa doon ragal mu dellu si waat man leen mais bu ma waxee yéen bu ngeen seetaanee vidéo bi ak li ma wax ça n'a rien à voir pour am nombre de vues bu mu tax ngeen sosal nit ki jaru ko hmm? jaru ko. mën na rafet rek euh, lépp mën na rafet. donc euh, alors ñu coow ci loolu man leen bu ngeen ma changé lu bi en moins de vingt minutes ma indi leen assignation ma yóbbu leen justice. parce que da ngeen may wax loolu lu ma wax te itam yéen ci seen wàllu bopp mun naa ma ne ko àdduna mënatul gudd tànk ba ma wax ak yéen ñaari baat jeexal naa ci yéen donc loolu na ko moytu bu baax farlu ci seen liggéey ay xale ngeen euh, góorgóorlu seen liggéey yàlla leen yàlla jàppale te lépp rek ngeen def ko ci euh, seen seen diggante ak. Euh, éthique bi ñu wax ak déontologie bi. voilà voilà éthique ak déontologie c'est c'est très important. lu ci nekk rek ngeen defe ko ni nga xam ne bii ku ko gis daane ah lii day wax dëgg yàlla yiwu na walla lii mu bind nii ak li kiy wax benn la bu ko defee benn coow du am hmm? yàlla na leen yàlla jàppale ngeen góor góorlu rek alors euh, seen euh, sit bi yàlla mujj ci télévision bu mag bu ñëpp di seetaan xam naa bu boobaa ngeen jël ma ma doon seen chroniqueur sport sport de combat. incha allah ah, yaa ngi ko yàlla def jërëjëf sëñ Khadim. Mhm. macha allah waxtaan am na solo trop Père Sensé yi kontaan nañ bu baax a baax. yàlla yàlla kontaan. Ah, di wax gars yi rek ñu bàyyi bàyyi xel bu baax parce que tamit ñu ñuy invité ay nit lañ te aussi dañu am ah. bàyyi xel bu baax si li ñuy wax ak tamit ñoom. li ñuy li ñuy bind ñu ko bàyyi xel bu baax a baax parce que loolu daf ci am solo ñu mm. respecté nit bi comme li ñuy wax rek a baax gis nga euh, sëñ Khadim euh, les journalistes ils sont là mën nañu euh, confirmer li may wax nii bu ñu nekkee école dañ naan lépp loo bëgg a wax natt ko kenn ci sa waa kër bu fekkee sa moromu papa la bu fekkee sa moromu yaay bu fekkee sa moromu mag bu fekkee sa moromu jigéen bu fekkee sa moromu rakk nga natt ko ci moom bu fekkee ne lu lay neex la jàllale bu fekkee ne lu lay naqari bu ko jàllale parce que ku nekk am nga njoboot te bëgguloo ñuy wax sa njaboot dara lu naqari donc góorgóorlu leen ci loolu. macha allah ah, def naa nag yéen ak bi bu ma ci gisulee leneen lu ma naqari saa yu ma ootee dinaa ñëw incha allah ci kantanu yàlla. incha allah voilà li nga wax rek incha allah duñ si kii daal duñ si bàyyi xel bu baax daal di wax gaa yëpp ñu bàyyi si xel ci loolu parce li ma am na solo trop trop. Mm-hmm. personne di la ñaanal bu baax. yàlla gën a dëgëral taxawaay bi tamit vraiment waaw bàyyi la fi parce que kanam kanam kanam bu baax. amiin dëgëral taxawaay bi liggéey bu baax. vraiment tey taekwondo euh, karaté xelam dina dem ci yow te loolu dafa am solo ça veut dire que sa waar bi nga li nga liggéey bi nga nekk yaa ngi si bay sa waar bu baax a baax a baax di la ñaanal bu baax di la aussi tamit gars dina jox rendez-vous ko beneen ñoon incha allah beneen invité toujours rek ci waxtaanu làmb jaa ngeen jëf